mbokk yi alhamdulilah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi yeesal sant suñu boroom subhanahu wa taala mi ñu wërsëgalaat ñu daje cib néegam fas yéene jël benn bind ci wàllu fiq ca mooy dégginu borom xam-xam yi ci la nga xam ne mooy aayooy téere borom bi ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi doon topp téere bi di minhajul muslim muy la nga xam ne mooy yoon bi jullit war a jaar ba yegsi woon ci la nga xam ne mooy buntu aj ak umra ñu yegsi woon it ca ponk ñeenteel ba ca mooy taxaw arafa bokkoon na ci lu jiitu mooy jullit xam ne aj makka farata la ci moom ci waxtu wu ko mënee waxtu wum ko mën a gulit xolam warul deñ di ko yéene fa lilahi alhamdu bind yi ñi ngi koy jàng ci jamono joo xam ni ñu yàlla manloo ñu dem di aji ji ca ñu néew a néew lañu buñ ko méngaleeg ña ko mënoon ñi ngi daj coono bu rëy da ngay dégglu ci rajo bi ñoo xam ne dañ naan ay trois heures du matin la ñuy jóge seen kër dem di rang ngir mën a verser wala mën a ñakku loolu lépp lañ bëgg ñun moom lañ bëgg ca may ngërëmal yàlla loolu it moo tax ba jullit war di sellal xolom ci jamono yu toll nii te mooy ab xolom mu jëmelu ko ci makka loolu day tax ba ña fa yàlla dogal ñu dem lañ fa jële ci ay ngëneel yàlla jagleel la ngëneel yu toll noonu yal na yàlla subhanahu wa taala jagleel ñu ko ñi ngi ñëwoon ci bunt bu mujj ci taxawaayu arafa bokk na ci li nga jàngoon it muy aj màkka ñeenti ponk la ponk bu jëkk bi mooy armal ponk ñaareel bi mooy wër kaaba ga ñetteel bi moom mooy daw safa ak marwa ñeenteel bi mooy dem arafat arafat boobu jëloon nañu moom it wareef ya ca am jëloon sunna ya ca am ba tey ñu war a yëgsi ci al aadaab te mooy teggin yi nekk ci ki jóge arafa ba ba aj ga di jeex ndax lépp li nekk gannaaw arafaat dañ koy méngale ak arafa boobu al aadaab mi ngi noonu aadaab boo ko déggee mooy al mustahabaat yi nga xam ne dañ ko sopp nit ki def ko boo ko defee am tuyaaba ju rëy doonte ne boo ko bàyyee it dara du la ca war yooyee indi na ci yu bari bokk na ba ci jiitu mooy atawajjuhu min mina sabaha taasii ila namira bi tariqi dabbin li fi'lihi sallallahu alayhi wa sallam zalik taxaw arafaat farata ba mooy gannaaw tisbaar fekk la fa gannaaw tisbaar fekk la fa waaye bokk na ci li ñu sopp mooy ci suba ga nga teel a jóge mino daa di dem arafaat jaare ko ci yoon bu ñuy tudde dabb nga jëm ca juma jooje ñu tabax ca namira nga xam ne fa la yonent bi boole woon tisbaar ak takkusaan kon loolu dañ koo sopp muy ngëneel gu rëy ñaareel bi ñu sopp ci taxaw arafa al ixtisaalu bada zawali lil wuquf bi arafa wa min mashru wa huwa mashruun xatta lil xaaidi wa nufasa bokk na lu ñu sopp keroog bu ñuy taxaw arafa su dee ne yaa ngi waajal julli ji tisbaar nga daldi sangu mi ngi noonu cangay loole jublu ci laab sell ngir mën a teewe taxawaayu arafa mu ne même soxna si demoon ba arafa yàlla dogal mu gis baaxam nga xam ne julliwul wala mu wasin julliwul teewul sopp nañ ci moom mu sangu cangaay loolu nga xam ne cangaayu jaamu yàlla la mi ngi noonu ñetteel ba ñu sopp alwuquufu bi mawqifi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam عند الصخرة العظيمة المفروشة في أسفل أسفل جبل الرحمة الذي يتوسط عرفة bokk na lu ñu sopp mooy arafa foofa taxaw rek arafa la muy place bu yaatu lool waaye nag rasul sallallahu alayhi wa sallam dafa demoon ci montagne bu ñuy tuddee jabalu rahma nga xam ne mu ngi nekk ci digg arafa mooy montagne boobu ngeen gis buñ ko wanee télévision bi am ñu bari ñuy yéeg ci kaw waaye ñi fay yéeg ñëpp mooy ñàkk a xam la yonent bi yéegu fa ay saxaabam yéeguñu fa yonent bi ca am na xeer bu mag bu nekk ca suufu montagne ba fa la taxawoon sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ba mu jullee tisbaar ak takkusaan di ñaan di ñaan ba jant bi so kon foo taxaw ci arafa baax na bokk na nag ngeneel soo mënoon a dem ca jabalu rahma loolu moom ngëneel la waaye nekkul loo xame ne nii lu ñuy wareef la ñeenteel bi azikru wa du'aau wal iksaaru minhuma wa huwa mustaqbilu lqibla bil mawqifi xatta taxruba shams bokk na lu ñu sopp lool yow mi dem arafa ngay tudd yàlla lu bari di ñaan yàlla lu bari fekk yaa ngi jàkkaarloo ak xibla ba bu doon da ngay taxaw moo gën boo munta taxaw nga toog ba ba jant ba di so rasul sallallahu alayhi wa sallam keroog ba mu demee arafa ca gileemam ga la toog alayhi salaatu wassalaam gannaaw tisbaar yëkkati ay loxoom di ñaan di ñaan baba jant ba di so saxaabaam ya taxaw wër ko loolu ngënil la waaye ki demoon arafa tëdd fay nelaw it teewul am na acc waaye bis boobu day bis bi gën a màgg ci ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne afdalu du'aa'i du'aa'u yawmu arafa wa afdalu ma aqulu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu almulk wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir mu ne ñaan gi gën gu nit ki ñaan mooy ñaan gu dëppoog bisu arafa kon occasion la boo xam ne jullit war caa góorgóorlu doonte ne daana wax ñaan gi gën ci ñaan gi mooy zikr boobu ñu wax sànq te mooy su ngeen waxee subhanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 33 loolu ngeen koy tëjee loolu kon muy bisu arafat wala yàlla tombeeg ak moom même boo demul arafa nañu xam ne bisu ñaan la ñeel jullit ñépp nekk bisu koor ñeel ñe nekkul arafa waaye mboolem jullit yi nekk ci àdduna bi loolu nekk na bisu koor ci ñoom bisu ñaan bisu zikrullah bokk na la gën la ngay zikrullah la gën la ngay ñaani muy baril di wax la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu almulk wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir suñu delloo ci juróomeelu lañ ca sopp wala teggin kawnul ifadati min arafa ala tariqi almazamayn la ala tariq dab alladi ata minhu sopp nañ booy génn arafa nga jaarale ko ci beneen yoon bu bokkul ak yoon ba nga duggee woon loolu da ngay gis ne su bari nit ñi duñu am coobare gi waaye bari na organisation yi ñu fay def di am yoon yu nit ñi duggee ak yoon yi ñuy génne li anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam كان من هديه أن يأتي من طريق ويرجع من طريق آخر الرسول صلى الله عليه وسلم بري ونك لن جامي يلي jaamu yàlla yi waxtu mooy yoon ba mu jaar ba muy dem day jaar beneen yoon loolu daana gën a feeñ ci bisu ayit bokk ne xikma bu ci borom xam-xam yi di gis mooy jeexitalu jaamu yàlla yooyu ngay jaar ci kaw suuf place yi nga jaar yépp dalay seede yowmal qiyaama moo tax ñu sopp nga jaare nii booy ni bi nga jaare nii bu dee juróom benneelu lu ñu sopp ci teggin mooy assakinatu fi sayri wa adami al israai fiihi mooy booy dem nga ànd ak dal ba ne nekk koo xam ne da ngay gaawe sab dox لقوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس منون عليكم بالسكينة ما يلين دي دينك ين عندك دل فإن البر ليس بالإيداع والإيداع هو الإسراء عندنا نك دل مباخ داي نيكول تي يكمتي في غاو ميغي نونو كون عندنا نك دل juróom ñaareelu sunna biñ ca sopp al iksaaru min altalbiya fi tariqihi ila mina wa arafat wa muzdalifa wa mina ila an yashraa fi rami jamarati al aqaba bokk na ci sunna yi ki nga xam ne bisu juróom ñeenteel ba ma nga jóg jëm arafa muy bari lool di talbiya te mooy labbayk allahuma labbayk labbayk la sharika laka labbayk inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak loolu lay wax buy dem arafa loolu lay wax buy dem muzalifa loolu lay wax buy dem mina loolu lay wax ba ba muy commencé di sànni jamra bu jëkk ba ñuy sànni ci bisu tabaski ba te la koy arrêté muy sànni jamra ba ca lay arrêté loolu juróom ñetteelu sunna bi ñu sopp iltiqaatu sabi xasayat min muzdalifa li ramyi jamarati l aqaba mooy soo jógee arafa soo ñëwee muzdalifa nga far fa juróom-ñaari xeer ngiri sànni ba ngay jëkk a sànni jamra bu mujj boobee ñu tuddee jamratul aqaba nga xam ne mooy benn jamra bi ñuy sànni bi su tabaski ba juróom ñeenteel bi addafu min muzdalifa baada al isfar wa qabla tuluu shams bokk na loo xam ni moom la yonent bi defoon sallallahu alayhi wa sallam ki jóge arafa day fanaan place bu ñuy wax muzdalifa julli fa timis ak gee julli fa fajar toog fa di ñaan di ñaan ba yëg ni kat leer na ñu ngi noonu ba yëg na leer na balaa jant bee fenk nag mu daal di génn muzdalifa jëmmi na ngir sànni xeer ngir sànni jamra ba donte ne loolu lu ëpp ci ujaaj yi léegi duñ ko def mu ngi noonu waaye loolu moom la ñu gën a sopp ñu def ko fukkeel bi al israu fi sayri bi batni muhassir wa tahriqu daabati aw dafu sayaarati qadra rami ramyati xajrin in lam yaxsha darara mooy boo ñëwee di dox ba yegg si fi ñuy tuddee batnu muhassir te mooy keroog bi say say ba abraha jëlee benn ñay bu rëy jële ko Éthiopie mi ngi noonu ñu jële ko yaman ñëw ne day toj si kaaba gi ba mu ñëwee ba foofu foofu la ko yàlla tënk foofu la leen yàlla sànni picc yi nga xam ne moo leen alak looloo tax ba ki jógee Arafa di ñëw su yegsee ba place boobu nga xam ni lu ci bëri am na màndarga yu ñu fa def dañoo bëgg ñu gaawal dox dox ba wala gaawal waruwaay wa même bu doon oto ñuy accéléré ko tuuti ngir teele génn foofu ngir teele génn foofu loolu it lim ñuy won mbokk place boo xam ne dañ fa alak ay nit jullit du dem di dugg foofu moo tax soo demee Arabie Saoudite ba tey waa Samut fañ dëkke woon ci seen montagne ya ma nga fa waaye yonent bi alayhi salaam dane woon képp koo xam ne nii mënu faa dugg di jooy bu mu fa dugg wala boo jooyul sax nga jooy jooylu ndax place la bu yàlla alage woon ay doomu aadama naka ñooñu it julit place su bakkaar du fa toog moo tax julit du dem di dugg ci ay baar même bu doon da nga fay naan boisson simple du toog ak ñuy naan sangara du toog ak ay ñuy wax ay shirk mi ngi noonu fukkeel bi ak benn mooy ramyu jamrati l aqaba bayna tului shamsi wa zawal mooy jamra bu njëkk boobee bis tabaski ba li gën ku koy sànni sànni ko gannaaw ba jant bi fenkee mu sànni ko diggante boobu ak diggante bi zawal di jot mi ngi noonu doonte ni yeneen jamra ya moom la ca gën ñu bàyyi ba zawal jot ñu dog koo sànni amma bi su tabaski ba moom benn jamra bi rek la ñuy sànni ñu ngi noonu fukkeelu sunna bi ak ñaar ci sunna yi ñu sopp qawlu allahu akbar maa kulli xasaatin yarmiha mooy sopp nañu heure booy sànni jamra xeer booy sànni nga wax allahu akbar sànni allahu akbar ba juróom-ñaari xeer yi mat fukkeel bi ak ñett mubasharatu zibxil hadi aw shahadatu xaala naxrihi aw zibxihi wa qawlu allahuma hada minka wa ilayka mi ngi noonu mooy bëgg nañu nit ki rendil boppam la nga xam ne mooy hëdiyoom doonte ni loolu presque amatul la nga xam ne mooy hëdiyu yi ay ticket looy jënd ña koy rendi ñoo koy rendi am na fa benn boucherie boo xamee ne nii daañ fa mën a rendi cinq cent mille xar ci benn bis mi nga noonu ci Milan mel noonu it dañu amee fu ñuy rey giléem yu bëree bëri kon bu doonte ne yaa ko mën a rendil sa bopp bokk na luñ ca sopp mooy ba ngay rendi nga ne yàlla lii day ci yow la jóge ci yow it lay dellu yàlla nag ñu ko nangul comme ni nga nangale woon kama taqabbalta min ibrahim xaliluk na nga nanga woon ci ibrahima xalilaka ki nga xam ne mooy sa soppe ba lii lépp bala an yaqul bismillah wallahu akbar gannaaw ba nga waxee bismillah wallahu akbar wante ne bu ñu delloo ci tabaski nga xam ne daa méngoog hëdu yeññëre ca kaaba ga moom it la nga xam ne moom lañ ci sunnaal mooy nga wax bismillah wallahu akbar boo ca delloo rabbana taqabal minna wala hada minni wa min ahli yooyu yëpp ay ngëneel la waaye daal bokk na la ca gën a dëgër mooy booy rendi sa tabaski nga wax bismillah wallahu akbar ñu ngi noonu alwaajib qawluhuma mu ne ndax loolu moom waajib la ñuy wax ko heure bu ñuy rendi hëdyu wala tabaski suñu delloo ci fukkeelu sunna bi ak ñeent al aklu min al hëdyi is kaana yaakulu min kabadi udhiyatihi aw hëdyihi mooy nga lekk ca hëdyu ba nga rey donte ni ñu ngi ko daan gën a jagleel giléem ya yonent bi alei salaam danaan lekk ci resu lam tabaske mi ngi noonu muy xariya wala hëdiyi muy la nga xam ne nii mooy giléem yam doon rey ca placeu makka fukkeelu sunna bi ak ñeent ak juróom almashu al almashyu ila ramyi aljamarati salaasa ayaama tashriq bokk nañ ñu sunnaal ki nekk makka fam dal ca mina heure bu jógee di dem di sànni jamra ya li ñu sopp ci moom mooy mu dox bañ a doon koo xam ne day war doonte ne bu waree it dara néew ci fukkeelu sunna bi ak juróom benn qawlu allahu akbar maa kulli xasaatin وقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا موي لاغا خد موي ايام التشريق تا موي نيتي فان يي توپ سي غناو تباسكي دنج تا ورا ساني جمرو بو يمون تا ñaar ya yit baxna bu ko defee ñetti jamra lay doon jamra bu ne nga sànni ko juróom-ñaari xeer sopp nañu heure boo xam ne da ngay sànni xeer ya nga wax allahu akbar soo paree nga ne yàlla yàlla na nga ko def at gu mucc ayib def ko la nga xam ne nii moom mooy jëf boo xam ne bu ñu gërëm la def ko bakkaar yoo xam ne yu ñuy bale la mi ngi noonu suñu delloo ci fukkeelu sunna bi ak juróom-ñaar alwuqufu lidduaai mustaqbila alqibla bada ramyi aljamarati alula walthaniya duna salisa mooy sopp nañu koo xam ne dafa dem di sànni jamra su sànni benn jamra bi bam juróom-ñaari xeeram mat mu jàkkaarloog penku ñaan dem ca jamra ñaareel ba sànni ko juróom-ñaari xeer jàkkaarloog penku ñaar ñaan su demee ci ñetteelu jamra bi moom boo ko sànnee day continuer dem kenn du fa taxaw di ñaan li annahu la du'a yustahabu indaha moom amul ñaan buñ ca sopp is kaana sallallahu alayhi wa sallam yarmiha wa yansarif ndax yonent bi bu masaan sànni ñetteelu jamra ba da koy sànni rek dem amma ñaari jamra yu jëkk ya sopp nañ nga taxaw ñaan fa fukkeelu sunna bi ak juróom-ñett ram yu jamratil aqaba min batni alwaadi mustaqbilan laha mooy bëgg nañu ku koy sànni nga dugg ca biir xurwa jàkkaarloog moom jaa'ila albayta an yasaarihi wa mina an yaminihi te mooy sopp nañ boo demoon bay sànni jamra ya nga fexe ba penk bi mooy ka nga fexe ba kaaba ga féeteeg sa loxo càmmooñ mina féeteeg sa loxo ndeyjoor donte ne foofa taxaw sànni ko baax na waaye loolu lañ ca gën a sopp amma bu dee ba ca mujj mooy qawlul munsarifi min makka mooy ka nga xam ne dafay génne makka ngir ni bi këram mun a aayibuun taayibuun ay waay ñun day ñi ngi nekk di dellu booleeg di tuub la nga xam ne mooy suñuy bakkaar te aabiduuna li rabbina xaamiduun ànd ak di jaamu suñu boroom ñeel ko di ko sant sadaqa allahu waada yàlla day dëggal na dig bam dige woon wa nasara abda dimbali na ab jaamam wa hazama al ahzaaba waxda dàq na kurélu kéefér ye moomu kese is kaana yaqulu is kaana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqulu zalik indi inda insiraafihi minha ndax yonent bi keroog bi mu jóge makka wax jooju la doon wax alayhi salaatu wassalaam loolu kon mbokk mooy aj makka mu des ci ñaari yi bind yoo xam ne nii da ko cay leeral te mooy almaadatu saamina juróom-ñetteelu bind bi mu lay jàngal te mooy fil ihsaar al ihsaar mooy koo xam ne ngant da koo dab gannaaw ba mu armalee man uhsira ay munia min duxuli makka koo xam ne dañu koo tere dugg makka awil waquufi bi arafa wala am lu ko teree dem teewi arafa ku mel noonu day bi aduwin aw maradin wa naxwihi min almawaani alqaahira na doon ab noon moo ko teree yëgg makka wala feebar moo ko tee yegg makka wala teew arafa ak fegaate yi nga xam ne da koo not wajaba alayhi zibhu shaatin aw badana aw baqara fi mahalli ihsaarihi ku mel nii day da koy war mooy mu rendi benn gàtt wala benn giléem wala benn nag ca fa nga xamee ni fa la ko yàlla nattoo ñu fekk ko fa doon feebar la wala ay noonu aw yabaasu biha ila alxaram in amkanahu zalik wala loolu mu nar a rey mu yónnee ko makka su dee kay kattanam yegg na ci loolu wa yataxallalu min ixraamihi li qawlihi taala gannaaw ba nag mu dindi armal ba mu yoroon ndax suñu boroom mu ne fa in uxsirtum fa mastaysara min al hadi heure bu ngeen demee ba am ngant ngalawaay na ngeen joxe la gën a yomb ci lu ngeen di joxe hadiyu te loolu it mooy ki dem ba makka feebar avant muy taxaw arafa ndax xam ngeen ne arafa moom benn bis la yeneen yépp mu ne su ko dabantal war kaaba gaag safa ak marwa même bu doon un mois sax mënees na koo dabantal amma arafa benn bis la looloo tax gouvernement saoudien yal na yàlla fayal ñu leen da ngay gis ne biir arafat tabax nañ fa hôpital da ngay gis ne lu bëri bisu arafat ambulance yi da ngay gis yu jóge madina yu jóge makka ñu yëpp ujaaj yi yóbbu leen arafat yére ñu mën koo fekkee même bu dee na malade bi mun ta jóg mun ta toog ambulance bi yóbbu ko ba arafat mu teewe arafat ngiree bu wéri mën na yeggale de surtout ajam waaye arafat moom bu lu rëccee moom c'est fini moom at gi moom mënatul a nekk ñu ngi noonu li mu joon ci bind yooyu yépp nag waaye almadatu tasia fi tawaafil wada te mooy wërug tàggatoo kaaba ga طواف الوداع هو أحد أطوفة الحج ثلاثة وهو سنة واجبة لغا خان موي وër kaaba gi ngir taggu ko ci ñetti wër yi at makka lënkaloo la ca moom wareef la lu bari nit ñi buñ demee makka léegi dañuy wër kaaba ga lu bëree bëri bëri day gis ñoo xam ne chaque jour ñëw wër kaaba gi waaye bu dee sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ajee màkka ñetti yoon la wër kaaba gi mooy ba muy ñëw muy tawaaful qudum ba mu ñëwee la ko ziar wër ko ñaareel ba mooy bisu tabaski ba mooy tawaaful ifaada ñetteel ba mooy bisu ba muy nibbi mooy tawaaful wadaa ñu ngi noonu su ko defee loolu moom wareef la man tarakahu li gayri uzrin wajaba alayhi dam koo xam ne amoo ngant nga bëgg a dem ca waroo kaaba ga da ngay rey ab gàtt ngir loolu loolu nag mooy wërug tàggatoo ga amma bu dee wërug bisu tabaski ba muy tawaaful ifaada loolu moom ponk la kooku moom deret mënu koo mënu koo remplacer fokk da nga koy def rek moom mi ngi noonu mu ne nag wa man tarakahu li uzrin fala dama alayhi koo xam ne nag ngant moo tee nga def ko da ngaa feebar wala avion ba dalaa bett wala yu deme noonu koo mel ne noonu dara waru ko wa yati bihi alxaaju aw almuctamir indama yuridu rujuu rujua ila ahlihi kooku dana ko def ki aj wala mu umra su demee ba bëgg ni bi mu wër kaaba gi tàggu def ko wër tàggutoo mi ngi noonu doonte ne ni borom xam-xam yi am nañu ixtilaaf ndax ki umra dana wër kaaba gi wërug tàggatoo lu ëpp ci ñoom dañ ne loolu uj kii aj makka la ñuy sant muy wër wërug tàggatoo waaye bu dee umra amul wërug tàggatoo donte ne ku ko def it sopp nañ ko ndax borom xam-xam yee jàpp ne dañ ko war a def donte ne la ëpp ci ñoom dañ ne wërug tàggatoo amul ci umra mu ne kon loolu dana nekk baada faraaxihi min xajjihi aw umratihi wa intihaai iqamatihi bi makkata almukarrama kañ ngay wër wërug tàggatoo mooy ba aj ga jeexee umra ba jeex sa bis ba nga xam ne mooy mujj ne da ngay génn makka foofu lañ ko bëggee fa yati bihi fi axari saatin yuridu alxuruju fiha min makkati almukarram sopp nañ nga def ko ca waxtu yu mujj ya nga bëgg génne makka bi xaysu ida taafa la yastaxilu bi cheyin bal yaxruj min makka mubashara nga xam ne boo xise wër kaaba gi dootoo lijjanti dara lu dul dajale say bagage dem ni bi wa in huwa aqaama zamanan li bayin aw shirain wa naxwihima fala daru bila darura tad'u ila zalik aada tawaaf mu ne bu dee nag da ngaa wër kaaba ga wërub tàggatoo ba pare wëlbatiku waat nag gisoo occasion ci am njaay wala mu jënd wala lu la fa tax a toogaat mu ne heure boo bëggee ni bi waat da ngay wëraat kaaba ga ndax bëgg nañ la ngay mujj def makka moom muy wër kaaba ga mu ngi noonu bu ko defee mu ne bi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر أهله بالبيت waaye kenn ci yéen bu mu génn mukk makka di dem lu dul day nekk ne la muy mujj def mooy daa di wër la nga xamee ne nii moom mooy néeg bu tedd boobee di di kaaba mbokk bu ñu xoolee bokk na ci lim ci teg mooy naka la ñuy defee ak aj ak umra donte ne loolu dimanche yu génn yépp ci la ñu nekkoon gis nañu ne di ko jël di ko baamuwaat loole jaru ko ñu ngi dénk képp koo xamee ne nii yàlla wërsëgal na la nga bëgg a aji ji ngalawaay dars yi ñu jot a def nga topp ko bu la yàlla mayoon nga dugg ci telegram bi wala remonté dars whatsapp yi yépp da nga ko mën a dajale mu commencé la jàngal fa ngay armale ba baa fa ngay génne makka yépp fa lilahi alhamdu loolu kon mbokk bu ñuy gisee moom mooy la gën a am solo ci li nga xam ne nii jàng nañ ko su ko defee buñ la doon defalaat ab tënk mooy da ngay gis ne mbokk aj makka ci juróomi ponk lislaam yi la bokk ki nga xam ne nii moom la war mooy ku yàlla may kattanu yaram may la kattanu alal yóbbal boo yóbbaloo bokk na ci lu ci borom xam-xam yi di wax mooy bokk na ci yóbbal boobee loo bàyyee sa waa kër waaye dooni am naa paas rek bàyyi kër gi noonu fokk nga am loo bàyyi sa waa kër am loo xam ne nii da nga koy yóbbaloo su dee ne yàlla dala nattu am nga alal waaye sa wér mayu la nga dem aji ji Makka su boobaa da ngay xool ku masa aji ji Makka moom mu dem ajali la loolu mooy jumhurul ulama loolu lañ wax wante ne am na ci ñu néew rawatina ci lenn ci mazhab Malik ñu ne ñoom waajibu musaaj yi mën na laa ajal waaye daal la ëpp ci ñoom la ñu wax ci seen tegtal mooy hadisu Shubruma la yonent bi alayhi salaam déggee waa ji di labbayk allahuma an Shubruma yàlla maa ngi aj si di ajal Shubruma yonent bi ne ko kuy Shubruma mu ne ko kooku day sama jegeñaale la yonent bi ne ko ndax yow mës ngaa aj mu ne ko déedéet mu ne ko da ngay ajal sa bopp ba pare doog a mën a ajal subrama wala tax ci la jumhurul ulama dëgg ci ni ki lay ajali day fekk moom mës naa ajal boppam te bu boobaa sa jan wàcc na yaag ña aji yéen a yem donte ne ni lu bari ci nit ñi duñ ko def aj màkk dañ koo def benn privilège boo xam ne ay daraja lañ cee gën a feeñal ka jaamu yàlla bi booy dem tàggu ñëpp def xew woote soo ñëw ñu lay ziare gauche droite loolu tax na ba da ngay gis ñoo xam ne mënuñoo dem sax teewul dañuy dem yaakaar naa nettali naa leen fii ci tafsir yi ay yoon sama mbokk Mouhamad Sarr yal na yàlla doole ñu ñëw dolli ko ko benn magum caamin bu ñu àndaloon mag faa bi daa màggate màggat nee na bi ñu demee ba dal ci otalu màkk yi ñu ngi def wëri kaaba ga tawaaf waaw moom mi ngi jaaxaan bi gars yi demee wër bu ñëw ah dem ngeen bu ñëw waaw leen góor waay dégg ba ñuy dem arafat dem arafat néew dem la ñuy def ci mun a yëpp dem fekk ci otel bi ah dem ngeen bu ñëw ah waaw leen góor waay yaa ngi dey bi ñu ñëw mu dajale jënd ay marchandise am ñëw ñu naan ko àllaaji àllaaji xam nga loolu loolu mbokk loolu ay njuumte la su ko defee kon su dee yàlla dogal na munuloo ak makka ponk la jaamu yàlla la seetal ab jaam ba wóolu su ko defee moom mu dem ajali la borom xam-xam it am nañ ixtilaaf ci ki nga xam ne dañ koy faj fay muy aj ndax aj googu baax na am baaxul am na ñu ko nangu am na ñoo xam ne nanguwul ko dañ ne aj màkk jaamu yàlla la nit ki da koy def ngir jaamu yàlla mais bu dee da ngay fayee ko ngir di di ajal nit ki ak jaamu yàlla loolee aj googu am na ñoo xam ne nanguwuñu ko donte ne am na ñu ko nangu almuhim mbokk yooyu mooy da ci gën a am solo ca doomu aadama yi dalal xelam suñu borom yàlla dani farata la bu ma teg ñi ka man lu bëri ci sahabatul kiram ya nga xam ne gëm nañu ne daraja ye gën a kawe ajjana ci la ñu nekk ah mosuñoo aj màkk gaa yi xadija ndax aj na màkk yaba soxna yeneen bi laa ñoom hamza ndax aj nañ màkk laa ñoom jaafar ndax aj nañ màkk laa ñoom zayd ibnu ibnu xaarisa ndax aj nañ màkk laa mooy mbooloom sahaaba yu bëri yi nga xam ne faatu nañ avant aj màkk jàpp nañ kenn du leen jiitu aljanna amma yow jurit bi dund yit caaj màkka dab la yit na sa xel dal mooy defal effort del ñaan di def effort ngiree dem màkk doonte ne yëpp suñu boroom nee na law araadu alxuruja la aaddu lahu udda ñi bëgg a at ñi bëgg a def jihaad dañ koy waajal ak waaj fokkit mu nekk programme boo xam ne da nga koy da nga koy waajal ñu ngi noonu bàyyi ko xel di ko waajal ngir yàlla jàppale la ci mais su dee def nga sa kéemtalal kattan yàlla dogal na dee nga demoo makka na sa xel dal amul benn muskila ca ne sa warugar moom def nga ko ca mooy yàlla dana la bindal at gu mel noonu lii mbokk da ngay gis ne ngi sant suñu borom subhanahu wa taala bi ñu yàlla yombalee ak yombal sunu jamonoy maam ya daa ngay gis waxuma dëkk waaye gox gox bu région bu mag a mag a mag mën nañoo toog lu mat cinquante ans ñaar ak ñett ñoo fa dem makk jamono bu njëkk ba bu ñu daan dem makk ñetti at lañ daan def ci tàggoo dem makk téléphone amul dara amul sun maam yi dogu gan dogu woon dañ daan miraas seen bopp daa ji ne su ngeen ma gisaatee baax na su ngeen ma gisaatul baax na dagg yoon bi di dem dagg yoon bi di dem ba ña daan nibbisi lum néew néew daan def ñetti at loolee tey yàlla wërsëgal ñu aj màkk gi tey moom daanaka moo at tëngee ja yem mi ngi noonu fii ngay départ di jokkoog sa waa kër boo ñëwee quelques heures yegg naa bu la neexee la ngay añeeg la ngay ree rek yépp nga leen koy won du du ngeen réer ba baa ngeen bisi mbokk loolu yombal gu rëy la gu yàlla yombal ñeel ñu yal na yàlla subhanahu wa taala wërsëgal ñu mérité ko te mooy ñu sant ci yàlla def ci suñu kemtalal kattan kon mbokk mi ngi noonu wallahu aalam wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mooy dafay woddu lambaayu dafay woddu lambaayu ba nga xamee ne nii même ay caleçon du ko sol loolu bokk na ci la nga xamee ne nii mooy armal noonu la ñuy jaamoo borom bi subhanahu wa taala buñ koy wax nag loolu góor ñi moo tax ñuy wax amma bu dee jigéen moom bépp yére boo xam ne sutural na awraam mën na ko sol ci la nga xam ne nii mooy armalam mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam biñu biñu waaw waaw non ki nga xamee ne nii dafa aje ak alal joo xam ne nii léwul day boroom xam-xam yi dañoo am ixtilaaf ci loolu am na ñoo xam ne dañ ni alal jëm fàggu bakkaar la da ko sàccam da ko njumlangam loolu bakkaar la moom à part bu koy dab mais aj gi bu ko jaaralee ci yoon aj gi baax na am na nag ñoo xam ne ñoo ëpp tegtal te mooy hadis bi bi ñuy wax ne yonent bi alayhi salaam moo ko wax mooy nit ki bu dee ne dafa teg tànkam jëm ci at ne labbayk allahuma labbayk su ko defee malaaka yi daañ na ko ah yow de sa at gi at bu sell la ndax sa yóbbal bi yóbbal bu sell la amma bu dee daa dajale alal ju xaraam ñëw ne labbayk allahuma labbayk an na ko yow de sa ajji kenn du ko wuyu ak li nga dajale lépp lu xaram la loolu kon bay xool su dee dëppoo nañ ci wéru xadis boobee dañ naan ki jël xal alal bu xaram aje ko kookee dañ naan ak ajam baaxul waaye nag comme ni ma la ko waxee la gën a moondu mooy ñu wax li ci borom xam-xam yi wax ixtilaaf moo am seen diggante ci wàllu googee waa ji nga xamee ne nii moom dafa amoon ngant ngant loolee doon ngant bu wér mu amoon ci moom yaqiin ci ne ngant bi du teggee ko ci dundam ndax ki nga xam ne mooy santaane ñu aj du ne aj màkka daa jot mu sibru wala mu nangam mooy ki dem ba jàpp ne man kat amatuma kattan pour mën a aj ku mel noonu loolu la kooku nga xam ne nag moom demoon na jàpp ne ne man kat mënatuma aj daa di jël nit mu ajal ko ku mel nii dañ leen ajug lislaam gi moom teggeeku na ko léegi nag heure boo xam ne dafay ajiwaat dafay ajiwaat ci aji ajug boppam mi ngi noonu mais la nga xam ne mooy ajug lislaam loolee moom teggeeku na ko ndax yàlla du ko ko teg ñaari yoon aj benn yoon la ci dunduk doomu aadama bi mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam ñenn daal la ñuy wax ci yenn tegtal yi mooy xale bi nga xam ne moom daa majeuragul yàlla dogal mu aji kooku ak ajam dañ naan ajug naafila la aj gu nangu la ajug naafila la su demee nag ba majeur yàlla may ko alal fokk wareef la moom mu dem ajiwaat mi nga noonu fokk wareef la mu dem ajiwaat mi nga noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam naam waaleykum salaam wa rahmatullah ndax kii aji dafay wër dëkkandoo yi jéggalu leen wala kuli xaal loolu suñuy aada la rek loolu suñuy aada la waaye mbokk dem aji jég dem ca jàkka ja ñoo yem doomu aadama daal war nga toujours di fexe ak say dëkkandoo ngeen nekk ci jàmm koo yëg ne yow yoral nga ko àq tooñ nga ko nga jéggalu ko loolu moom mooy li li nga xam ne loolu loo baax la amma nag niñ ko aadawoo mooy su dee aj màkka fu ne nga dem fa wër naan jéggal leen ma jéggal leen ma loolu moom suñuy aada rek la gisuñu ko ci sunna bu ñu jàngalee yonente bi alayhi salaam ne kenn seen balaa aju ji ne wër nit ñi balu leen aq loolu gisuñu ko ci sunna loolu suñuy aada rek la lu ci bëri ci ay tàggatoo lañ koy defaale mi ngi noonu bëgg nañu daal képp koo xam ne yoral nga ko aq moom nga delloo ko aqam ca bor yaag ak yu demee noonu rawatina ngay aji ji màkka ca aj makka rawatina comme ma la ko wax jamono ju jëkk ja ak dee dafa jege lool te mi ngi am ba tey mi ngi am ba tey ana ñaata doomu aadama ñoo aji des fa kenn xamul nu mu toll ñaata catastrophe ngeen gis am na benn année boo xam ne plus de huit cent morts ñoo am ci benn catastrophe am na benn année boo xam ne quatre cent morts bi am yaa cinquante ci gannaaw boobu waxuñu sax nit ñi ñaata la ndax bari gu ñu bari donc que kiy aji ji makka moom bokk nga yoral nit ki ak war ngaa dem fexe ba jéggalu ko àq boobee balu ko waaye amaa nag fu ne nga wër fa naan balleen ma balleen ma loolu moom nekkul woon ci doxalinu sunna wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam ah xam nga loolu moom problème mu état la état mooy ki nga xamee ne nii moom mooy xool loolu musul am lan moo tax mu am ñun ñëpp xam nañ ko mooy problème mu corona bi mooy am te gis nañu ni corona boobee mi ngi gën a yeb mag ñi mi ngi gën a yeb mag ñi looloo tax ñoom non seulement yemuñu te 65 ans mooy aju mi quota bi dañ ko wàññi aj Makka daana jege presque ay 3 millions mais dañ ne 1 million la yem te 1 million boobu it ñi am 65 ans nga xam ne dañoo néew doole ñu mel noonee dañ leen di arrêté lu tax ngir ragal feebar bi ñoom la gën a yàpp ñoom la gën nekk di sonal loolee dama jàppit ne avant ñu koy décider waxtaan nañ ci ak seeni médecin waxtaan ci ak seeni borom yi xam-xam loolee moom dañuy jafe ñu condamné leen ci loolu wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw yaakaar naa kon mbokk mënees na doyloo loolu ñaan yàlla rek yàlla na yàlla wërsëgal ñu aju ñu nangu képp ku mu teg ngant it yàlla na la yàlla may yool bu toll na ba muy fay ñu aji woon wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain